salaamaaleykum bokki taalibe yi noo yëkkati kàddu ci turu Serigne Cheikh mi muy kàddu goo xam ne miin nañ ko dégg mel na itam yàkkamti woon nañ ko ndax murit yëpp ko yàkkamti muy liggéey bi ñu daan liggéey Sëñ tubaate waxtu wa jege si waat ñu war caa jëm mu mel ne yàkkamti woon nañ ko lool ndax sëñ bi mu ci jotee ndigal ba war koo yëgle day mel ni fenn fu ne ba mu fa yónnee ña fekkoon na ñoom ñu jekk taxaw di ko déglu kon day mel ne lu yomb la li sëñ Moussa Fall wax démb nag moom laay fàttaliwaat mboolem daf ne lii wala su ko soññi kenn kenn ku ne yaa war a soññ sa bopp ndax gannaaw bu weeru dëgg ma rek ku ne xam na ne liggéey bi war naa ñëw rek kenn ku ne da war a soññ sa bopp waaye loolu teewut sëriñ bi ne nañu woote waat rek dajale waat mbooloo mi yëkkatiwaat kàddoom wax li tax nu jëmaat ci liggéey bi waxtu wu ne da ci dul mën a jëm te jotu ndigal ndax bu yàgg na dañu daan ñu tàmbali waaye nag gannaaw dafa am kilifa te kilifa ga moo koy jox ndigal moom mu doog a ñëw yëgal nu ko loolu rek a yeexal jataay yi waaye moom bis bi mu jotee ndigal li ak léegi yaakaar naa waratu waratu fukki fan wala bu ko fee dem bëriwut matul fukki an sax bi mu ko jotee la daal di jàpp altine ji ne nañ ci daje lu mu gàtt gàtt lu mu xat-xat nan bokk daje rek waxtaane ko kon soo si sëñ bi naa ne mi ngi lay siyaare bu baax ci ci teewaay bii nga xam ne waxtu wu ne wéttalam nga yaag sa bokk yi nga ko àndal nga xam ne waxtu wu ne saa bu wootee yëgal la ko rek yaa ko fi njëkk loolu li muy wane rek mooy lii ñuy liggéeylu yéen ñi nga xam ne yéenay njëw sëñ Tuubaa yéen ñu ko gën a bëgg ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañ ndax waxtu wu ne mënoon ngaa toog yónni ay ndaw rek ñu ñëw nekkal la fi waaye da ngay sol sa mbubb woo ñi nga war a woo ñëpp ànd ak ñoom ñëw toog kon sëñ bi nee na mi ngi lay siyaare di ñaan ñu dem ci liggéey bi ci jàmm te génn ci jàmm kon bokki taalibe yi li ñu soññewaat rek mooy jaayante rek la ñuy defaat te jot na mooy liggéey bi nu dëgmal liggéey bu niru lu jafe la waaye lu yomb ci ñun la ndax taalibi moom saa bu amee pas-pasu liggéey la bëgg day yomb ci moom te mooy ren gis ngeen nawet bi ni nii si magal gi duggee kon dana mbay mu xaw a bari fu ne am na taq-taq waaye nun duñ ko yëg li ma waxoon sëñ bi rek ne ko saa boo joxee ndigal ban yëg ne ndigal li ñëw na rek murid ñoom ndigal bu ñu ko xasee jot dootuñu yëg dara ba nga ma yónnee ci CRD ba loolu laa wax loolu dama ne ko mbale mi lum tooy tooy tooy tooy tooy muri yi xalaat peel yeeg dara seen loxo lañ koy tonnee

sang mii sëñ bi ndax sëñ Abdouloo mi nekkoon ci bopp Matlaboul Fawzayni tegaat na ko ci loxoom léegi kon dafa mel ni moo nekk ci kanam kon soñ ñu ngi lay gën a soññaat yi itam ndax yow lañu daan yónni sëñ Abdouloo kon nag gannaaw tey bu baax a baax waaye di soññ nag mboolem daayira yi fu mën a nekk ci koñ ci dëkk bi fu mën a nekk rek yëngu ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi sëñ baa ngi lay ci liggéey bii nu dëgmal te muy liggéeyu sëñ Tuubaa bi nga xam ne damay wax ne loo xam ne at mu jot benn yoon nga koy def ci at mi wala ñaari yoon te li des sa bopp nga nekk di xëyal sa bopp di gontal sa bopp ñu la kaay xëyal sëñ tubaa ñaari xëy te yow li nga wax lépp sëñ tubaa nga ko jox kon loolu dana yomb ci nun bu boobaa nag li ci am soo rek mooy kenn ku ne soññ sa mbooloo soññ chef de quartier kenn ku ne ña nga dëkkal président daayira ku ne soññ ña nga dëkkal su ko defee bu ñu ko defee rek dana yomb ci sëñ bi te yomb yomb gi muy yomb ci nun moo ëpp njëriñ ndax ñun magal gun dëgmal buñ ca noppee rek li sëñ bëgg dana ko am te bëgguk sëñ bi dong mooy ñun moom la war am murit bëgguk sëñ bi dong la def muy ak bëggam ñun amuñu géneen bëgg lu bëgguk sëñ bi li mu bëgg mooy ñu seetal dëkk bi nam daan sete li muy tooy tooy na gën a set na gën a set ci mboolem at mu ne na ko ren gën nga set gën koo rafet ba yaakaar ñuy yaakaar lépp suñ borom musal nu ca loola te loolu yàlla mën na ko ndax mbale mii rek bu ñu ci jógee li ñu ragal mën na mën na ko dàqaale ndax mën nañ ko buub sànniwaale ko ca kàmb ga te loolu la ñu yaakaar ne itam noonu lay demee kon noo ngi sant ñëpp di soññ ñëpp bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw borom sareet yi borom benn yi transporteurs yi bàyyiwuñ kenn kenn ku ne la nga xam ne moom nga fàtte woon ci ci liggéey bi sëñ bi nee na mi ngi lay bàyyi xel di la soññaat ngir loola borom benn yi nañ daan taxawe waaye seen kilifa yi moom benn itam nañ daan taxawe ñi nga xam ne ay entrepreneur yor fi ay peel ci dëkk bi tam nañ daan taxawe sëñ bi nee na mbooloo moom mépp mu leen di soññ ci liggéey sëñ Tuubaa bi nga xam ne noo ko bokk te mooy suñu jëwrin kon noo ngi ñaan yàlla yóbbu na ca jàmm te liggéey ko ñu ko bëggee te ñaanal suñu kilifa gii seen kanam muy sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko wéral ko yéene yeeg mébét yi lim ci bëgg lépp mu ñu ànd ko ak moom lépp lu mu ko bëgg ni mu ko bëggee yàlla na ko sëñ tubaa may kattan nga ak wér ga ba ni mu bëgg liggéeyal sëñ tubaa te yéenee ko murid ñu amee ko jàmm yàlla na yàlla defal jàmm ñu ci barke sëñ tubaa yàlla na yàlla dàq mbas mi àndaale ak mbalit mi dem ci àll ba kenn dootu ko dégg ci barke sëñ tubaa te mën naa nekk jaarale sunu siyaar ci sunu jëwriñ sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdou waaye di siyaare wala soxna su màgg su tedd si muy soxna Astu Mbacke bintu suñu Abdou borom dër bi ak mboolem ñi fi nekk ñëpp di siyaare si Mourtala ak mboolem ñëpp rek di wax sëriñ bi ne ko nun dey bu yàgg lañ tàmbale woon di réunion di waajal li nga xamante ne moo di mbale mi kon li si des rek sa kàddu rek lañ doon déglu ginnaaw déglu dégg nañ sa kàddu nag li ci des mooy fetlu sunu lexasaay te daal di nekk sa waar incha allah rabbi jërë ngeen jëf. ñu ngi leen di ziare di leen nuyu te jiital ci nuyu bi suñu xale bi suñu jëwriñ ji toog ñun nag ñooy waa benn man maa fi teewal waa benn secrétaire général bi président bi dafa génn tey. ñuy continuer rek di soññee comme nañ ko daan def rek di woo bépp chauffeur boo xamante bi yaa ngi ak oto. ñu ngi lay woo nga teew teel a ñëw te ñu dimbaliñ ci ci programme bi nu ñuy programme rek teel a jox sa fóot ci programme ñu teel a mën a liggéey teel a jublu ci mbir mi ñu ngi woo bépp sa fóot ak transporteur boo xam ne seen président bi teewu fi ku ko fi teewal itam ñu ngi koy ñi di ko teew mu teel a joxe ndigal sa fóot si pour ñu teel a ñëw teel a jublu ci liggéey bi rek liggéeyal sañ Tuubaa kenn ku ne sa bopp rek ngay liggéeyal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. ñu ngi siyaare mbooloo mépp kàddu gi moom bu sëñ Mourtada si jëlee kàddu ci jataay bu jëkk miinu ñu ci woon sax détail waaye waxaale na ñëpp ndax kenn ku ne ki nga fi teewal mooy mbooloo ma nga jóge boo demee ni leen daje woon nañ kër sëñ Touba jublu ci liggéey bañ daan liggéey bu du woon soxna waalo mais nag du ma jël kàddu ndax soxna waalo day ñayu xare boo xam ni saa soxna astu wootee lépp lu mu jàpp dana ko bàyyi ànd ak soxna jama guy mbind gépp topp ci ñoom ak lépp li aju ci guy mbind loolu rek a tax nu jël kàddu waaye kon duñu ko jël ndax sëñ Mourtala si kàddoom doy na taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suñu kilifa gi si jataay bi di sëriñ Cheikh Abdou ak ñi ma àndal ñëpp si liggéey bi ak suñu waajur wi di soxna su Mbàkke mu Sëñ Abdoulahi Mbàkke mu Sëñ Touba ñoo ngi <coughs> wax ci turu ndaw ñi dëkk bépp di leen di soññ si liggéey bii nga xam ne moom la sëriñ bi woote te li si ëpp solo <clears throat> ñu ndaw ñi ñoo ko mën a génne muy ñoo mën a yëkkati ñoo mën a yëkkati mbalit mi yóbbu ko si camion yi te ku ne xam ne dëkk bi dafa tooy sën yi dafa tooy faaw ñu jeqi ko loolu ndaw ñi ñoo ko ñu si ëpp li si ëpp solo ndaw ñi ñoo ko man kon ñoo ngi soññ ndaw ñëpp ñoo ngi soññ ndaw ñëpp fu waay yor daayira baa nga yor fa mbootaay baa nga yor fa loo xamante ne kuréel la ñoo ngi lay soññ ñu génn fas yéene ànd ak ñoo euh, sëriñ bi si liggéey bi te bañ xëy benn fan nag wàcc nañ xëy ba mu jeex takk ñu ànd ak sëriñ bi buñ doon ni mbalit mi buñ paree ku ne xam na ne sëriñ Touba moom ku ko seetal ku ne seet wecc si bàkkaar ni Cheikh Mamadou Mourtada waxee léegi rek ñu fasaale si baax a baax a baax euh, ji mu deñ ba jeex takk kon ñoo ngi soññ ndaw ñëpp ku ne si dëkk bi ak fu waay nekk rek ñoo ngi lay soññ si liggéey bi sëriñ Touba bii ñu ñëw yeesalaat jaayantewaat sëriñ Cheikh maa ngi lay wax ci turu ndaw ñi ne la takkaat nañ suñu ndigg ak suñu laxasaak suñu pas-pas ñëw jébbal ko fas yéene ànd ak yow si liggéeyam sëñ Tuubaa bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa ñu daje fii maa ngi nuyu ñëpp jiital ci nuyoo bi soona si sunu waajur wee di sunu ndey daara di sunu jëwriñ maa ngi koy jiital ci nuyoo bi di nuyu ñëpp nag nun bokki taalib yi daje fii ak bokki taalib yi fu ñu mën a nekk ci àdduna si maa ngi leen di jot li nuyoo boo xam ne mi ngi jóge ci Cheikh Mahamadul Muntaxa mi jëwriñu Sëriñ Tuubaa ji nuyoo boobu daa ànd ak cant ak ngërëm Sëriñ Muntaxa daa def nam daan def joxewaat ndigal li mu jaar ci Sëriñ Basiiru moom si Abdu Xaadir mu defaat nam daan def ndigal li jàll ci sëñ Seex Jëmb Faal mu defaat nam daan def mu delloo si lu ndigal li genn jot li ko taalibe sëriñ Tuubaa yëpp kon nag sëriñ bi naa ne mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñépp yeesalaat rek ndigal li nga xam ne yàgg nañ koo jot te moom nan seetal dëkkub sëriñ Tuubaa bi balaa gani Serigne Touba yi ñëw dafa naa neer buñ ko seetee ji jii la ci war doon fukki at ak ñaar daa mel ne 2008 lañ ko tàmbalee woon ci bés sëñ Mamadou Lamine Bara toogee Serigne Touba booba la joxoon ndigal li Serigne Mountakha Serigne Mountakha ndigal li ñoroon ko lool mu yëkkati woon ko delloo ko ci bokki taalibe yëpp jiitu woon ci sunu kanam at mu njëkk ma taxawu liggéey ba mu ndax moo taxawoon màggal gi booba lépp waaye mbale mii moo ci njëkkoon bu xëyee fii la doon xëy si kër sëñ Tuubaa gii laxasaay yabaloonu ca waar wa bañ defee liggéey bi nañ ko bëggee woon ca déwén sa la ko sëriñ Baara booleeg sëriñ Basiiru sëñ Abdu Xaadir ne ko na taxawu liggéey bi sëriñ Basiiru wax sëñ Muntaxa ne ko nag ma booleeg ñenn ci sa njaboot sëriñ Muntaxa boole noog moom sëriñ Basiiru xamaloon ne nu lan féete woon féete woon at ma ko njëkk muy setal dëkk bi moo ëpp solo ci liggéey bi te moo ci njëkk nañ ko ko féete woowaat ma xamaloon ko ne kon dama bëgg ñu boolewaat maag ñañ ma loon daaw ba ban amee ko ni ko bëggee woon man laata ak ñoom liggéey bi ñu defe ko noonee boobee it lanu ca sóobu sëriñ Muntaxa waxoon wax yu rëy yëm ca waxoon booba ci setal Touba ak lam ca digge woon lépp bokkoon na ca waxoon ne ñett ci setal Touba la gën a gaawe xel mu sel mu mën a xam lu baax ak xol bu sel mu mën a bëgg lu baax ak set ci ay bakkaar noonu la ko sëriñ Muntaxa waxe woon ci at mu njëkk ma ñu déggaat ci xese yi ci topp yëpp ba dégg na Serigne Touba daana wax ne ma nga ci njaareem ne sama dëkk ba di Touba ku ma fa seetal seetalal ab xasab ma warlu la kër ca àjjana li muy tegte rek mooy Serigne tubaa bëgg gum bëgg Touba ak ni mu ko daan waxe fu mu mas a nekk Touba ko fa gënal am bu diis bu yaatu rek moo bàyyi woon fu mu a nekk waaye Touba la la boppam Touba la bëggoon ba tax loolee ma doon ko fi tegtale mu mel ne seetal tubaa gi it kon yàgg na fi ñu wax ne Cheikh Moustapha de daana toog santaane ne dañ seetal dëkk bi booba dëkk bi réyagut waaye ñu wax ne moom fi muy toog la ko wër moo koy seetal boppam di ko def ci ay poosam di wax ne ku xamoon di ci seetal dëkk bii buñ la wax da nga daw ba rëq dem dem dugg ci kon buñ demee nag noonu ba yàlla dimbaleenu liggéey boobu ñu féetaliwaat nu ko kon dañuy sant yàlla rek liggéey bi nag ay tawfeex yu bari am na ci ak ndimbal yu bari wax gis naa ne at mu nekk day gën a yomb ndax liy waral gën a yomb gi nag mooy dañ koy gën a xam di ko gën a bëgg di ko gën a façon te mbooloo mi waxtu wuñ ko àndee pas-pas ak yitte taxaw nañ ca war a taxawee lépp day yomb loolu nag tey jii rek gisaat naa ko sama xel dal ci mboolem jëwri yi daan yi ñu daan àndal liggéey bi woote bi jàmpoon na ndax ndigal li bi ñu ko jotee yàggu ni sëñ laa waxee te sëñu nu woon dox benn jéegut am na ndigal li ba noppi moo tax woote réunion bi ci ñeenti fan juróom rek lay toll te booba maa ngi ci njaarim nekk fa ak sëñ Muntaxa doxoon sëñ Murtala ñoom ñi ñu wuy ji CRD bi te woote réunion bi waaye gis naa ne jëwri ñi ko daan seq yëpp ñëw nañ loolu gën naa dalal sama xel gën na maa xamal ne pas-pas bi noo ngi koy bokk di ko fasoo di ko jàpp te loolu day tax rek waxtu ñu ko songee mu gën a yomb loolu nag mën nañ ci am rafet njort bu baax a baax a baax ak dalu xel bu baax a baax a baax ndax ab murit moom ab liggéeyam li may wax rek ñaar rek ko yor mooy yitte ak pasteef lépp lu taalibe song song ko yitte ak pasteef loolu dana ko jàkku dana ko def na ko bëggee ndax loolu kat moo sas yoon wi rabbi asaabaka bil ximma joojee ximma weesuwul la waaye yitte ju ànd ak pasteef mooy yóbbu góor yàlla yi ci yàlla mooy defal góor yàlla yi fu waaye fu taalibe àgg loolu la fa àggale te gis naa ne liggéey bi ñun ñëpp bokk nañ ci daje ci loolu kon xam na ne day gën a yomb rek ànd gi itam dañ koy gën a ànd bi faw bu ko defee ñuy gën di rafet njort bu baax a baax ndax li sëñ Mourtala wax dañ ci rafet njort ni ñaan setal gi ànd ak jàngoro ji dem loolu kat mën nañ cee rafet njort bu baax ndax choléra di mbale mi yëgu bi jële woon ñëpp mu xam ko at yee ko njëkk yëpp màggalu Tuubaa gu masaan ñëw bu jeexee choléra am bi mbale mi amee ba mu jàllee choléra amatul kon mën nañoo rafet njort ci bu buñ balee ba noppi corona dem la fi jële woon choléra moo fi jëlewaat corona kon mën na ci rafet bu baax a baax a baax lépp nag la Sëñ Muntaxa waxoon korona ku ñuy yónni di ko jox ndigal la waaye sunu borom mi koy yónni di ko jox ndigal lépp lu sëriñ bi bëgg ñaan ko sunu borom da koy defal kon sëriñ Muntaxa waxtu wu ne mi ngi doon ñaan li jóge fi kon buñ ko def seetalee dëkkam bi def ko ni mu ko bëggee taale bi yëpp ñaan ci biir ñaanam nga dafiy jóge kon nañu rafet njort bu baax a baax kon liggéey bi ñu ngi tàllaan ñëpp loxo nag ni ko sëñ Mourtala waxee danañ fi dajewaat ay daje mën nañ koo jàpp bu sib tey bii rek bu dee siwaatee di altane ndax bu na àggee ci dibéer ji la ñu war a tàmbali liggéey bi ndax loolu lépp bëggoon naa ñu waxaale ko dibéer ji doon ñaar fukki fan ci weer wi di septembre moo doon benn fan wala ñaar ci safar dibéer ji la ñu jàpp tàmbali bi alterne bu tey bu delsee bu ñu fi dajee dana fekk ñu xam ne ci dibéer ji la ñu war a tàmbali liggéey bi loolee lépp léegi tax nu gën a mën a waaj bu ci gën a yaatal jataay bi ñu mbooloo yi kenn ku ne mën a soññi sa mbooloo waaye tey jataay bi la woon maa ngi jotle nu nuyoo waa Touba mësuñu ko tàggoon si ànd ndax jëwriñ ya foofu yëpp ay jëwriñ lañ fii ci mbale mi te la ñuy defit ci mbale mi la bokk mooy wàññi taataay dan daan bale bu noppi wàññi taataay kon la loolu ci moom liggéey bi ànd kon benn liggéey la waaye nag lii day liggéey boo xam ne loxo yëpp lañ caa war a jàpp liggéey boobee nag benn benn loxo ñoo koy def ndax ña ca war a ànd ca gas ba ña nga ca des ay machine ñoo koy def te taali bi yëpp jàpp nañ caa seen wërsëg lañ ca ñu koy def ba liggéey baa ngay dox liggéey bii nag mbooloo yépp dañoo war a génn seetal dëkk bi tonni ko yóbbu ko loolu ay loxo yu ànd ak lay war ci loxo ya lay war ci loxo ya mooy ay oto ñu yor benn yoo xam nañu ko léegi keneen ku am lu mën a génn mbalit ñu ngi sàkku nga indi ko boo oto yi ñëwee itam dana am lu ca war muy carburant ba carburant yëpp mi ngi ko joxe la ca desaat mooy xéewale lépp rafet nañ jot ci ren daan doy nam daan doyee la ca desaat mooy woo dëkk yi wër dëkk bi yëpp loolu lépp bu ñu toogaatee ba mu yaatu sëñ Murtala mi dana ci àgg na waaye muy Mbàkke Bawol ak dëkk yi wër dëkk bi yëpp Tuubaa yëpp limee yàgg te bis dañ xam ne Tuubaa na ko sëñ Fàllu waxe woon rek ci wane gi njaareem kon lépp lu wër Tuubaa ci Tuubaa la bokk waaye fu ab taalibe mën a fanaan ci àdduna it li may wax rek boo xëyee booy boo jullee bay ñaan la ngay ñaan suñu borom ci barkeb Sëriñ Tuubaa ngay wax kon ka nekk Japon ka nekk Amérique ka nekk ci Europe ñëpp fañ nekk ak Tuubaa la ci ñoom ndax sëñ Tuubaa lañ fay wéttalikoo sëñ Tuubaa lañ kon fu li ak fu mën a nekk na gëm ne foofu Tuubaam la na gëm ne sëñ tubaa la fay wéttalikoo na gëm ne sëñ Tuubaa moo ko la fay xelam te lemi ñaan ci barke sëñ Tuubaa ñaan kon fu nu déggee ndigalu sëñ Tuubaa nan takku taxaw ba na ko sëriñ Tuubaa bëggee ñu defe ko nag sëriñ Murtaa wax na ko léegi ñoom ñoo demoon ca kër saa jëmb jottali ndigal la ñu fekk fa pas-pas ba ñu fa daan fekk mbaa bu ko raw ñu jaar ci suñu jëriñ mu sëñ moo sëñ Modou Aminta daan bu sëñ Seex jëmm yabalee ay rakkam sëñ Seex ñoom sëñ Fallou ak sëñ ñoom la ñu bokkal na ci waar ak këri yi bëri yëpp nag ñoom ñëpp itam noo ngi leen dégluwaat di leen waajal waaye mboolem ko yor jiite mbooloo ci dëkk bi moo ngi jiite daayira wala nga yor ab koñ wala yor nga yor ab son wala nga yor loo xam ne daa nga ko yëngoo ci liggéey bi nanga xam ne woote bi dañ na ñëpp waaye nekk fekk na la fa lu waaye man na ko def kenn ko na nga daan jàppee na ni jàppee nu bokk ko song ko daan ko ñibbeeg ngërëmul sëriñ bi suñu yëpp faju biir bi teegal la kon noo ngi di gërëm ñëpp di delloo cant gi soxna si di sàkku sëriñ Muntaxa ba ci moom nu am ci ndam ak tawfeex sëriñ bi yoo xam ne buñ fi jógee lépp lu bëgg te am ko sëriñ Mountakha ak ñaanam da koy daane la ci yàlla na dajeeg sëriñ bi mu ne ko dajeeg tawféexi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéwén sa lépp day barkeel yàlla na dajeeg tawféexi sëriñ ci liggéey bi ak lépp lu mu jublu jërë jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu woo mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew dajal nañ ñëpp noo ngi soñ ñëpp di jox digg daje jamono jooju nga xam ne fa lañ war liggéey bi muy benn panob safar bi sëñ bi wax nan takkaat suñuy ndigg laxasaay waat rek def def def liggéeyu sëñ Tuubaa bi bokk ci ñi koy defar daal nañ ca bokk yàlla na ci yàlla boole ñu bokk ci kon sëñ baa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan ñu daje caa ngërëm sëñ Tuubaa yàlla yóbbu nu ca bis nu def ko na ko bëggee te daje caa ngërëm sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu